li tax a jug plateforme bu bees bi ñu tuddee Kermel mooy yóbbu Sénégal ci dématérialisation ci ni ñuy joxe marché public yi ci loole tax na ba acteurs yi bokk ci commande publique bi ñu daal di leen tàggat ngir yombalal leen ni ñuy jëfandikoo outil biile. waaw ah, plateforme bi ñu doon euh, wane tey mu ngi tudd Kermel euh, Kermel euh, da ngay jàpp ne état du Sénégal moo bëgg a yeesal. Euh, maanaam doxalinu lu ñuy tuddee marché public wala commande publique. Euh, ñu dox si nag ay jéego yu am solo waaye lu mot a yeesal la ndax léeg mu am ay ay rëkk-rëkk euh, jamono yiñ toll nag muy jamonoy informatique jamonoy digital muy loo xam ne buñ ci sukkandikoo rëkk-rëkk yi ñu amoon yëpp maanaam dina dinañ ko saafara waaw loolu nag la suñu autorité yi xam ba teg. plateforme bu mel nii mu tudd Kermel nga xamante ne euh, dëgg-dëgg day yombal liggéey bi waaye nag da koy jox kaaraange. dématérialisation bi nag am na ay avantages yu bëri bu ñu sukkandikoo kii di directeur bu statistique ak bu documentation fële ci ARCOP. mbir yi gën a gaaw day tax mbir yi gën a simple ndax lépp machine bi moo koy def day tax ki nga xam ne mën na nekk Kédougou mën na toll Kédougou au lieu que muy déplacé wu di def cinq cent sept cent kilomètres ba Dakar di. soumissionné di dem di imprimer ay documents yu dul jeex bu la neexee fi ngay toog nga bës sa machine sa offre daal di dem ba pare donc wóor na daal ci lépp nga xam ne aussi autorité contactante la ëllëg bu fekkee dafay denc documents yi dafay metti fi ñu koy archiver des fois bon mën nga denc ay documents mu réer wala mu yàqoog yooyu yëpp su fekkee dématérialisation la nañ def benn processus daal boo xam ne nañ sécuriser même archive yi. plateforme bii dina numériser procédure nekkoon participant di rafetu lii waaw formation bi li ma ciy mën a wax daal mooy que ni euh, dafa ñëw à son dafa ñëw waxtu bi nga xam ni moom lañ ko soxla woon ndax période bi li ñuy wax ci euh, mbirum marché public moom mooy euh, jàll ci li liñ liñ naan efficacité ak rapidité donc ci wàll woowu nag ñu indil ñu plateforme bi ñu naan Kermel dafay permettre ñu utiliser moyen euh, version papier bi mais ñu utiliser version numérique bi. ngir mbir yi gën a leer ci wàllum ni ñuy joxe passation marché public Sénégal nag bëgg a dem ci lii di dématérialisation te loolee dina yombalal liggéey bi te dina tax nag kenn dootul sonn.